bi ñu leen ko joxee li ñu doon xaar ñoom pour ñu matal ko ndax matal nañu ko loolu tamit muy ay audit yoo xamante ne dañ koy def non pas pour fitnaal ay société non pas pour bunt xatal leen waaye pour xool ndax lii nga xamante ne moo ci waroon nekk intérêt Sénégal ndax Sénégal jot na ci ndax sénégalais jot nañu ci ñii na nga xamante ne ñooy ñi ñuy jëflante ci bitim réew te muy ñoo xamante ne yàgg na ñoo ñëw Sénégal nañu xam ne wala bëgg na ñoo ñëw Sénégal dañu xam ne Sénégal tey la gën a ubbeeku Sénégal tey la gën a wóor te Sénégal tey la gën a taxaw sax waxatuma la biir Sénégal waaye biir Afrique biir CEDEAO biir UMOA pour am pour dal am fa pour jàmm am fa ndax ku ne Sénégal nag wax Cheikh Anta Diop ku ne Sénégal wax Léopold Sédar Senghor mi nga xamante ne yàgg naa xaar ci tànku pour réewum Afrique booloo pour askanu Afrique booloo kon loolu dinañ ci taxaw gën cee taxaw xar ci suñu tànku tubéy ba luñ ci mën a matal rek ci nuñ ko waatee ñu matale ko noonu mbokki Sénégal dañoo war a xam ne gannaaw ba ñu moomee suñu bopp suñu problème ñun rek ko mën a régler